awusu billaahi samiil aliim mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbil aalamiin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tabaarakallaahu bokk yi jullit yi jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare rawatina suñu mbokk yu tedd yi ñëw fi nga xam ne ñooy télévision MK TV MK TV ñu ngi leen di nay di leen siyaare di ko dalee ci directeur ba rawatina yow mi nga xam ne yaa fi ñëw ñu leen di nuyu bu baax di leen siyaare bu baax tabaarakallaa ci barab bu tedd bii ci dëkk bu tedd bii bu sell bii e, su ko defee mu mel ni fii ngeen ñëw ni ñun ñooy délégation bi joge ko Bamba Moodu ca Saalum Bamba Moodu ca Saalum nag mm, tabaarakallaaw dëkk bu ràññeeku la ci diggante moom ak euh, Touba ki nga xam ne moo mooy wax ak yéen nii di osmaan sàll eh, jógee ko ca Bamba Moodu di rakk Mouhamed Sall mi nga xam ne moom moo jiite sax délégation bi danga fekk mu xaw a génn rek eh, Bamba Moodu nag maam Mor Anta Sali Mbàkke moo fa doon jàngee ci suñu maam maam Moodu Bamba tabaarakalaa ba mu jànge ba pare la mooy def ba góor gi di ko yeewi la góor gi suñu maam Mamadou Bamba ne ko soo demee yam ko wax nag bëri na waaye xaju fi waaye pour tënk rek li ne ba mu fay jógee ko la suñu maam Mamadou Bamba ne ko soo demee sa doomu ñaareel tuddee ma ko ndax wax ca moom wax yu rëy rëy rëy yoo xam ne nii soo ko waxee ku xamul sax mën na ko weddi waaye lépp lu mu waxoon ci maam boroom Touba ne ko sa doomu ñaareel jooja noonu lay noonu lay dana dana fa noonu lay mel kenn ku ne xam na ne mel na lu raw loolu fa tabaarakallaa kon e, ndeysaan loolu àllaaqa boobu nag nga xam ne moo dox diggante Touba ak Bamba Touba suyee ci rôle boo xam ne Bamba nuñ leen ko fay mukk nag ndax mboolem xalifa bu fi nekk daal man daal ñu amee ngor ni ñoom ak ñu leen baaxee ak ñu leen sellee ak ñu amee wëlëre ni ñoom loolu man mosuñu ko ñun xamuñu ko ndax bari nañu jàngee Bamba ci Mamadou Bamba waaye ku ci mel ni Touba dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moom amu ci ñu toppatoo Bamba Moodu lañ bépp xalifa bu fi toog fonk nga Bamba Moodu lool jox bàmb Bamba Moodu lool jox cër ñooñ bamba moodu lool ba ñun dafay mujj sax dëgg-dëgg xaw ñu euh, yéem ñi daal waaw ñu baax a baax baax a baax a baax te tey Touba dëgg-dëgg ah wax dëgg yàlla de li mu jëriñ ci senegal fi ne bëri na waaw kon su ko defee nag yàlla dogal na muqaddimatul xidma bi nga xam ne moom tey biñ ñëwee ñoom lañ fekk fi ñoo ñu dalal fii ñun de yàgg nañu fee ñëw fii su ma yeboo ne bañ fa dala ñëw di yàgg na lool lool lool bañ fee njëkk di ñëw booba délégation yu néew a néew a néew fi nekkoon booba matuñ sax fukk ki délégation sax matu ko waaw yàgg na trop eh, daan ñëw yu Saliou Mbacke tabaarakallaa mu baax ma suñu maam ju baax ju tedd ja eh, daan ñi dalal ma daan toog ak moom mu di ma laaj rek Mamadou Bamba ma di ko nettali yu bëree baree bëri muy kontaan lool ndeysaan ba bisas ba suñ joon yàlla tey jii nag xalifa bu fi mos a toog bu nekk Bamba Moodu moom wax dëgg yàlla jox nga ko cër bu rëy rëy rëy ñi ngi leen cee sant di leen ca ñaanal di leen ci gërëm nag ndax bu leen neexoon itam wax dëgg yàlla yàlla jox na leen lim leen di jox ñoom fi ne jeesu itam seen ak mbaax rek la seen ak mbaax rek la yàlla leen baaxee lool baaxee Touba lool baaxee maam borom tubaa baaxee ak njabootam ba ñoom xeebuñu kenn waaw tabaarakallaahu loolu moo waral cër bii nga gis ñu jox nit ñi nii cër bu réy boobu noonu ci seen ak mbaax la waaye tabaarakallaahu la leen yàlla jox jox na leen ko ñun nag fii tawatuñ dara muqaddimatul xidma mi nga xam ne moo yor dara fii daal ñi ngi koy sant di sant ka ko jiita ba ci ki ci ba ci ki fari suuf di wax ne lépp loo xam ne lu war la ci ñuñ dalal xam leen ne def nañ ko ba def lu romb sax liñ leen seen liñ leen yaakaaree kenn tawatu fi dara kenn mànkelewu fi dara duut bañ leen fi dala fekk ba tey mosuñu fi mànkele dara dara dara dara waaw gune gi gën a tuuti ci bàmba sax su fekkoon moom lañ yebal su ñëwee fii tabaarakallaa wax dëgg yàlla abdoulaat busa mu baax mii ak ñim ko bokkat dañ ko jël teg ko fañ ko war a teg kon sëriñ abdoulaat busa moom suñ xarit la suñ soppee la wax dëgg yàlla ñi ngi koy ñaanal yàlla fan wu gudd loolu wànd ak wér barke maam yi daal yal na yàlla doyal ko ci ba mu doyal a doyal a doyal Euh, ku matee li muy taxawee la ku ko matee la nag waaw ci boor bu nekk nag vraiment wax dëgg yàlla xeebut kenn maanaa euh, soxlaab kenn tuutalut ko tey ku fi tawatoon fii dara ba mu yëg ko ci tàng moom ci boppam rek moom xam nga am na ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu yor loola waaye moom ci boppam sax mën na jog defal la ko ndëkk ko fayefam ak mbaaxam kon Abdoulaye bu sa yàlla na suñu borom yokk ko yokk darajaam yokk maxaamam gërëm nañ ko trop ñi ngi koy ñim bokkat liggéey bi ñëpp nag ndax dafa dañoo xamante moom mu doon suñu xarit doon suñu li ñun xëy na ñëpp ñu toppatoo ñëpp ñoo taxaw si ñun waaw fa tabaarakallaahu kenn ko dajeet fii tey rek boo ne ko nangam laa soxla ci ñu fi nekk nii yëpp dana la ko defal na nga ko bëggee kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm dalal bi baax na rafet na toppatoo gi mat na fii ñun ñooy waa Bamba Moodu yooyu ca Saalum man mi wax ak yéen di Ousmane Sall Serigne Mohamed Sall moo jiite délégation bi tabaarakalaa di suñu mag ñu ngi lay di sant yéen télévision bi itam nag di leen wax ni incha allah dafa xat waaye konoon mën nañ leen waxtaanal lu baree bari ci diggante Maam Mor Anta Sali Mbàkke ak suñu maam Mamadou Bamba tabaarakalaa seenu jaar jaar ak eh, fa ñu jógee ba bisu tey bi nu mu rafetee nii incha allah eh, ñu ngi sant xalifa bi fi nekk nag ñu ko ñaanal yàlla na suñu borom yàggal ko fi te wér yàlla na suñu borom yàggal ko fi tamay ko wér yàlla na suñu borom yàggal ko fi tamay Euh, lu xew bàmba moodu moom xalifa bii yebal na fa yónni na fa yónni fa loxoom tabaarakallaahu rawatina gàmm gi génn na le gi paase na loxoom bu rëy lu rëy rëy la ca def kon tabaarakallaahu loolu ñu ngi koy ci sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla bu baax yàlla na suñu borom yàggal ko fi tamay ko wér waaw jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.